mbokki Gambiens euh, man la Pa Samba jaw euh, ma bëggoon a waxtaan ak yéen euh, ci li nga xam ne mooy dal suñu réew tey ngir jamono ju may wax ni tey doom bi Gambien yu bari ñu ngi leen jàpp tey di leen tuumal ne ay góor jigéen lañ ñii nag ñu jàpp am na ci ay ndaw am na ñoo xam ne ay kilifa lañ sax teg jabar ak ay doom seen kër ya biri góor jigéen nag soo ko waxee. ñu bari daal dinañ la indil mbiri mbiri diine dinañ la indil mbiri diine ne diine lislaam lii la ci wax diine chrétien lii la ci wax lii la ci yàlla wax li la ci yónnete yi wax waaye lu ma bëgg a niti Gambia bàyyi seen xel mooy ne li nga xam ne moom lañoo def ñi ñu jàpp ni di leen tuumal tuumal laa de du mbiri góor jigéen am na lu ci gën a am solo nekk góor jigéen baa tuumal la góor jigéen mooy lan mooy cëri doomi gàmbiyen ngir niti gambien bu nekk dafa am cëram te war a am cër sa réew ma cër boo xam ne kenn waru koo nangu ci sa kaw ci sa loxo ngir doole te ni ñu suñu réew ma dafa war a nekk réew moo xam ne réew yi luwaa lay nekk war a nekk réew moo xam ne ni nit ki benn ci coobareem ak benn kàddoom rek mun naa jóg wax niti gambien ne lii laa bëgg ngeen def mbaa lii laa bëgg ngeen def olof dafa faral di wax ne mu ne xoddeeku bala ngaa lakkale soo déggee olof wax ne xoddeeku bala ngaa lakkale mooy nga fagaru ngir soo lay déggee ñu ne xoddeeku mooy su fekkee ne bey nañ bay taayal taayal daay ci àll ba dinañ def loo xam ne nii dina béy benn euh, euh, yoon woo xam ne nii su daay gi tàkkee ba jéggi dayoo du egsi ci réew mi pour lakk réew ma mel ni rek ci gàttal mooy ñu fagaru ngir ñun niti Gambie su fekkee ne dañ toog tey ne ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp xamuñ leen ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp lañ leen tuumal ñun bugguñ ko ba tax be ñun duñ wax duñ coow duñ leen taxaw li nga xam ne moom la oote si ñun mbaa oose suñ kaw mooy ne élégit daay googu Yaaya Jammeh di taal tey su tàkkee mun naa jëm si suñ kaw te su fa jëmee suñ kaw dina nekk jamono joo xam ne kenn du fa nekk pour dimbale ñu nañ bàyyi suñ xel te fàttaliku leen ne Yaya jàmme yónni woon na fi ay ndaw ñu dem si ay dox ay gox ci réewi Gambia di jël ay màgg ay kilifa di leen tuumal ni ay dummaleen di leen jox kuubee jaara gàcce googu kenn xamul nu mu toll ñu si bari dee ci suñ fàttale ko Yaya Jammeh yónni woon na fi ndaw ci télévision yi Gambia pour mu dal di xas ak saaga ñi nga xam ne ñooy soose yi si réewi Gambia Yahya Jammeh lu moo def nii defut ko ngir diine lislaam defut ko ngir réewi Gambia ngir Yahya Jammeh lu mu defati rek Yahya Jammeh tax mu def ko ngir fu mu nekk nii lana tax ba ñun fa xam faguñ ne Yahya Jammeh mun naa jóg ëllëg ne mbépp koo xam ne nii islam ba moo toppat nekkut ak man bi nga xam ne moom laa bëgg a tarix tarixa gi ne ñooñu dañ leen war a jàppa teg leen benn place gisoon nañ fi mu jóg dal di fi toroxal murit yi dal di leen xas gis nañ mu jóg jël ki nga xam ne daf loon julli bés bi nga xam ne moom bëggutoon nit ñi julli jël ko ko yóbbu ko ca kaso tey ñu ngi ko yóbbu ci euh, koot yi kon nag moo tax mu war pour ñun ñi nga xam ne ñooy de doomi Gàmbi ñu xeex lii jóg wax ci ngir suñ waxee su fekkee bañ nga góor jigéen sax dimbalewuloo góor jigéen li nga dimbale mooy réewi Gambie ak yow sa bopp nga xam ne éleg su élégee su ñëwee di dal sa kaw dina fekk yow defoon nga fagaru woon nga fagaru goo xam ne nii loolu du mën a am ba pare ña nga jàppale woon dinañ la mën a jàppale teyit it di réewi Gambia li nga xam ne moo ñu dal tey góor jigéen teguñu ko li nga xam ne mooy suñ coobare tey mbaa li nga xam ne tey mooy suñ tolof tolof yi nga xam ne moom la niti Gambia di jëfandikoo bër bu nekk bër bu set du góor jigéen li nga xam ne mooy seen coono tey mooy lan mooy lu ñoo añee lu ñoo reeree ak lu ñoo ndékkee li nga xam ne mooy seen coono tey mooy loppitaan ba ñoo fajoo ji li nga xam ne mooy seen coono tey mooy garab yi nga xam ne moom la ñoo fajoo li nga xam ne mooy seen coono tey mooy docteur yu mun a faj te di leen faj li nga xam ne mooy seen coono tey mooy lan mooy mun a dëkk ci réew moo xam ne dinañ ci mun a dëkk di wax li nga xam ne mooy seen coobare ak seen bëbët te kenn du daanu seen kaw waaye réew mu ñu am tey wax dee la yëngu tuur wax naa ko ba sonn Gambia lu ko dal tey di góor jigéen lu ko dal tey mooy coono te benn doomi Gambien tey mënuloo ko oo sa réewi Gambie tey ne tey li nga xam ne moo la gën a soxal sa réew ma mooy lan mu ne la góor jigéen ñi génn ci déedéet lu ñu la wax mooy soo ma mënoon a dimbali ni ma mën a dundalee suma njaboot gi soo ma mënoon a dimbali ba ma mën a génn tukki soo ma mënoon a dimbali ba ma mën a am fu ma fajoo ji lii moo nekk coobare réewi Gambie lii moo nekk coono réewi Gambia lii moo nekk li nga xam ne mooy mbébéti réewi Gambia moom lañ bugg a wax te lii lañ bugg a faj kon nag Yaya Jammeh mbiri góor jigéen yam yi mooy wax ni du dara lu dul coonal niti Gambie toroxal niti Gambie te mu war pour ñun ñëpp ñu jóg xeex ko ngir suñ ko xeexu tey ëllëg dinañu dal kon nag niti Gambia acca leen ñu xoddee ko bala ñoo lakkale jërëjëf